mbokk yi gannaaw bu ñu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi bal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nañu yàlla boole jëkkër tomb bu ñuy fàttalente dañu koy aj ci lenn ci am solo gu digle ak tere am ak lenn ci yi tax ñu war koo def ak kan moo ko war a def ak ku ko warta def digle ak tere gannaaw bu gëm yàlla weesoo doonte lef mu gudd la waxin la gëm yàlla gu dëgër nit ki ci jëmmi boppam ak ñi ko gën a jege la cay topp mooy gannaaw bu jàllee kum ca mën a woo ba nga bokk kook moom nga ñëw bokk ko ak moom yaar yooyu buñ jàllee ku ñëw laaj la nu muy war a def ci mbir nga dénk ko bu dee lu mu war a def la nga ne ko nii lañ ko war a defee bu dee lu mu war a bàyyi nga ne ko nii lañ koy dañ koy bàyyi fa saasa kon mu mel ne yett la ba yent muy gëm yàlla gu dëgër ak kooko mën a wàll nga wàll ko ku la laaj nga wax ko la nga ko war a wax yett yooyu bokk na ci yi gën a fës yi ñuy xàmmee ab jullit ak keneen ku dul ab jullit moo tax suñu boroom sax di ko ñaax di ko kañe xeetu sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi ñu yàlla boole xeet wi nag du ci melokaan wi du ci lenn lu dul pas-pas bi moo ñu boole ñuy aw xeet xeet wi bokk bëgg nangam gëm nangam rawatina nag xeet wi nga xam ne dañoo bokk ak sayidina muhammad pas-pas bi mu doon jàngale muy gëm yàlla mi ñu war a gëm ca nañ ko war a gëme ak yañ ca war a jàpp ak yañ ca war a bàyyi te suñuy cër di ko feeñal muy jëfee ay ndigalam ak di bàyyi ay tere moo tax mu waxoon ci alxuraan ne yéen di yéenay xeet wi gën ci xeet yi foofu nag day mel ne yëkkati ay wagg jaadu na fa mu ne déet du lenn kat lu dul yéen ci seen biir da ngeen di jàpp jàpp gu dëgër te fekk muy la ngeen war a jàpp ku ngeen ko mën a wàll ngeen wàll ko ko waaye nag ku ngeen am sañ-sañ ci moom su waree def nga ne ko jugal su waree bàyyi nga ne ko bàyyi kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas li ko waral mooy taamuruuna bil maarufi wa tanhawna anil munkar wa tuminuuna billah kon nag ku jot ci bataaxal bi na fexe ba bokk ci ñi nga xam ne dañuy taxawe loola buñ toog rek naan diw ko war a def wala nañ xaar ba diw yëkkati kàddoom wal takun minkum ummatun yad'una ila al xayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhawna 'anil munkar li tax umma boobu weesu na ñuy toog di déglu diw ñoom suñu borom mi ngi wax ci alquran ne inna ibrahima kaana ummatan ibrahima dong dong dong taxawaay ba mu taxawoon daa mel ne ku wuutu aw xeetu la mu ndax taxawaay bu dëgër ak pas-pas bu wóor bu mu téye inna ibrahima kaana ummatan qaanitan lillahi xanifan wa lam yakun min al mushrikin yonent bi sallallahu alayhi wa sallama gën koo jegeel si nee na kenn kum doon ci yéen su gisee munkar munkar nag mooy lan ak maaruf mooy lan danañ ci ñëw tuuti waaye ku ci gis yéen lu dul noona te am kattan kattan gi mën a dindi nag ci loxo loolu état moo ci jiitu ndax moo mën a xëy xëy rek ne yoon wii ñu doon jaar di dem bu fa kenn jaarati di dem waaye ñiy dikk képp nañ fa jaar loolu état moo ko man moo mën a toxal léegi léegi léegi ci yoxam gannaaw nag état bi ñu nekk du état boo xam ne day déglu alxuraan nee na wala yeneen ci bi nee na faw mu am ñu ko wuutu ndax poste boobu mënut a nekk poste bu kenn jëlu jëlut ñi koy jël si boobaa mooy ñi nga xam ne aw nit dañuy rang ay rang yu gudd ndax bëgg leen a gis ñooñu ñoom ñoo fay wuutu état su boobaa ndax buñ ne kee bu mu agsi bu kooku bëggee agsi dana xam ne kii kàddoom lu am doole bu mu agsi mu bëgg a agsi mën naa tas rek lu ko lu ko loo xam ne bañoon agsi rek mooy gën ci moom kon ñooña yan bu gis a ngi leen tiim xawma xam nañ ko xawma xamuñu kon ba ci jëkk mooy ku gis lu dul noonu na ko dindi ak loxoom ñaareel ba ku munta dindi ak loxo nga xam ne kattanam aggu fa baatam aggu fa na reeteet reeteet picc yu sew sewaan yi di naaw danañu rey jaan léeg-léeg wala sax lu gën a rey jaan nuñ koy rayee mooy dañuy def am ndiiraan kii day woo moroomam ñu wootente ñàkkut nu ñuy wootente ba ñëpp daje ñu tiim la ñuy reetaat ba ku xam àll bi boo ko séenee da nga xam ne fële dara nga soo dee jàmbaar nga wutali fa ba xam picc yi luñ ndiiraan na la su dee ndox suuf la wala leneen jàmbaar yi fexeel mooy reetaat ku ko mënut nag loola naqari ko lool loolu moom kenn amu si ngànt nangam naqari na moom kenn amu si ngànt man raa minkum munkaran fal yugayyirhu bi yadi mooy bu njëkk bi fa in lam yastati fa bi lisaani reeteet ko fa in lam yastati fa bi qalbi li tax mu diis nag li tax ma ne ñi si war a wuutu état mooy ku ñuy rang bëgg ko gis te yàlla rek tax bare nañu ko bëgg a gis ñoo xam ne lañ ko yaakaare mooy mu ñaanal leen benn muy ñaan koo xam ne la lay booleeg diw mu dimbale la léegi ci li nga soxla wala mu wéet ak boroomam ñaanal la yàlla mook yàlla ñu fekke mu xam ne yàlla rek mooy sottal waaye kooku nga xam ne moom lañ yaakaar ci loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ak moom nee na moom yonent bi ñu ngi giñ di waat ci tedd ngay ki nga xam li muy wax su nopp su ko sooboon du sotti day jël bakkanam ne faw ngeen di digle su digle ware di tere saa bu tere ware su ngeen ne teg kenn ku ne di diglu keneen baye boo ngeen séentu mbugalum suñu borom mu leen di yoot te mbugal ma la ci gën a simpale mooy ñaan duutu nangu ñi ngi ki ngay gën a yaakaar di ko ñaan lu ñaan ak ñaanam day mel ne am ndox bind ci ndox rek walladi nafsi bi yadihi la taamuranna bil maarufi wala tanhawunna an il munkari aw la yushikanna allah an yabasa alaykum iqaban minhu summa tadcuunahu fala yustajabu lakum ak luñ mën a ñaan nag ñaan jàmm ak ñaan nangam ñaan nangam kenn ku nekk ak soxlaam ak soxla yi nga xam ne ñëpp ko bokk yàlla danaan teg ndax dañoo dañoo fas yéene ubbi bunt bi ak caabi ji ko war a ubbi muy digleeg tere digleeg tere nag digle maaruf ak tere munkar moo taxoon yàlla yónni téeméeri junni ak ñaar fukk ak ñeent ci ay ndaw loolu boo ko seetee lim bu néew la ak boo ko dendalee ak li fi nekk ci mbooloo ci jamono ji ci àdduna bi te moo ne ñooñu seen mbooloo ma ma ngi doonoon diggante anbiya ak mursalu gannaaw bi ay saalixoon ñëwaat seen gannaaw dox seeni tànk nañu daan def ak lañ daan daj bay wax ak nit ñi soono yu metti la woon fii mu ne nii ci jamono jii kenn rek mën na xëy wax ak àdduna bépp ñu dégg ko mi ngi am léeg-léeg mbir xew moo xam ne fam xewe na muy ruqee ñi gën a sori ci àdduna bi mën nañ ko jëkk yëg sax waa réew muy xewe ci seen rek kon boog aw lay itam day daal di jafe loolu moo doonoon liggéeyub anbiyaw ak mursaloon mooy digle ak tere déedéet ak axakay rek ak ñàkk koo defam nag moo gën a nekk musiba moom bokk yi suñ demee ba nga xam ne ñii yaakaar ñëpp ci lijjanti àdduna mënatuñ ñoo lijjanti ñu dem wuti ñi nga xam ne ñoom la ñuy yaakaar ci suñu digganteeg suñu borom mënatuñ ñoo lijjanti suñu digganteeg suñu borom te suñu borom di dégg lépp war si naa seetaat suñu bopp al maaruuf mooy lan mooy li yàlla digle lépp li yàlla digle lépp lu ca sharia andi am na loo xam ne aw nit dañ koy fent te fekk sharia xamu ko te du ko mas a xam ndax amut ci néegi sharia yi fenn fi ñu ko fi dugal bokk yi bala ñoo dugg ci tere munkar te mooy ku wax maaruuf safaan ba mooy munkar dañoo war a jàngale maaruuf ba noppi maaruuf mooy lépp li yàlla santaane digle ko teg ca ab yar ku ko defut yar ba dal ko gis nga loola ba ci jiitu mooy gëm yàlla bu dëgër gis nga pas-pas bu dëgër faw ñu jàngalaat ko nit ñi bañ xam lu mu doon li ñuy fas ak li ñuy fecc ndax fii ci àdduna ku fi fasut dara ku fasut dara fas mooy denc dara ba mbir na kët na jonn te fasoo woon doo fecc wolof yi leer la faw ñu jàngal nit ñi lan mooy maaruf maaruf mooy pas-pas bu dëgër moo ci jiitu yonent bi nee na rasul amri al islaam li yàlla digal digle lépp ba ca jiitu ca ay jamono yam koy wax ba fi mu ne nii mooy na nit ki dugg ci lislaam ba noppi yàlla soog a wax ak moom ndax ñi nanguwut moom yàlla teg na leen ne nasullah wala takunu kalladina nasullaha fa ansahum anfusahum am na fi muy waxee itam nasullaha fa fa nasiyahum rasul am mooy dugg ci biir lislaam jaamu yàlla ci pas-pas bu leer bokk yi foofu ku fi tënku mën naa bañ a xam munkar mooy lan bu ñu xoolee mbindi sëriñ bi néew na lu muy détaillé li ñuy tere waaye li muy bind jëm cam di ko leeral nañ ñi mooy li ñu war a def rek li ñu war a def ko ca sax doo xam lu ñu warta def bañ dale ko tere ba ci jëkk mooy gëm yàlla gu wér wa ma umiru rasul amr wa ma umiru illa li yabudu llaha muxlisina lahu diin xunafaa wa yuqimu salata wa yutu zakata wa dalika diinul qayima kon rasul amr al islam wa amuduhu alsalaa wa dirwatu sanaamihi al jihaadu fi sabilillah loolu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon faw ñu dàngal nit ñi loolee dëgg-dëgg mooy lan bañ téye ko ba sax ca su boobaa duñ xamati leneen lu dul luñ war a def waaye iman mooy pas-pas bi may wax rek waaye ci ay waxit ñu fexe ba jàngal nit ñi waxin te bokk yi ñuy jàngale wax nee nañ balaa kenn bala ñoo jàngal kenn wax dañ koy jàngal nu ñuy dégloo wax ni ñuy dégloo wax ni ñuy dégloo wax nag bu fekkee ka koy wax ci diine lay wax nañ xool waxam jooju ay nattukaayam fu mu ne ci diine su nat su fekkee kaw diine la ko natt moom amul fenn foo ko mën a jëmale mu jëm fa sulul ci diine rek waaye su fekkee feneen la jëm nag mën naa jëm neneen rek yow miy wut diine bàyyi ko fa te dem wuti leneen te dem wuti koy wax ci diine kese wa qulu linnaasi xusna nañuy wax nam war a deme rek te teg ko ci ay texte yu leer waaye ay jëf itam lu ñuy def itam bala ñu ko def nañ xam lañ ca teg ndax nee nañ li gën a xóot ci usul mooy lu ne nga xam fa nga koy teg te bañ a jéem a xam loo cay am bul jéem a xam looy am ci mbir mi waaye xamal fa nga ko teg rek loolu it su weesoo sa jëmm ji dafa war a feeñ ci si jëflante ak nit ñi saa bay wax ak ñoom ñi xam ne yow mi borom pas-pas bu set bëcc nga am na baat bu ñuy jëfandikoo ci munkaraat yi la bokk war nañ koo tere bu soobee diw wa ma tashaauna illa an yasha allah wala taquluna li cheyin inni failun dalika gadan illa an yasha allah mooy bu soobee diw loolu lañu war a jëkk tere ndax ci munkar yi la bokk bokku ci maaruf waaye yi nga xam ne dafa dab diine te mënoo ko dugal ci benn ci néegi diine yi it ci munkar yi la bokk dañ ko war a tere tamit ngeen a gàññi ci jamono ji bàkkaar yu magaale yi yu mag yeeg yu ndaw yi waxaale wuñ ko moom yàlla ñu ci yàlla musal su ko defee kon digle ak tere digle mooy digle maaruuf kenn ku dem mën naa dem ca waroom xam-xam ñam dëkkal ñu gën ko koo leeralal bu baax a baax a baax a baax a baax waaye gën koo leeral it li tax yonent bi man raa minu munkar munkar bokk na ci li ci gën a fees mooy pas-pas bu baaxul pas-pas bu baaxul niñ koy xamee day feeñ ci ay wax benn boobu rek laa tudd bu soobee diw laa tudd waaye mbokk yu bari la am yu làqu yoo xam ne buñ ca buñ ko feemuwut day feeñ sëñ bu mag bi nag bokk na ci bi muy dénk ñi ko gënoon a jege mbokk yi su ko waxoon mën nañ koy netti lente muy ruus ñu koy dollee ko wàññi ba ba muy jeex waaye daf ko bind bu yàgg yàgg booba am na jot booba téere bi ñuy wax al axdari laxlari la ko mag ñi gën a xame moom la jël way ko dolli ca loo xam ne nekkul ci laxdari ndax li laxdari yu ni laxdari yu demee tollu ni sëriñ bi daf koo jël tënk ko ci ñaari bunt kuy jàng al jawharu nafis fi aqdi nasri al axdari rais ñaari baabu ndong moo ci am albaabul awal ak albaabu thani la ca des ay faslun lañ fasul lañ tudd faslun fii lii faslun fii laa ñaar fukk ak juróom-benn lañ waaye laata muy agsi ci bunt bu njëkk bi bi muy tamhid lii al axdari wax awalu ma awjabahu arrahmanu qataan ala almukallif iman bi ma doon wax léegi summa maarifatu ma yaslahu bi faraid al ayni jamian fantabih ka xukmi sawmin di ko wax ba àgg ca lii la war a gëm tàmbalee ko teg tànkam fii teg ca lii teg ca laa daf caa boole digleeg tere digleeg tere nag ba mu koy laata def ay tomb yu leer daf ne bul ca xool ku la neex ak ku la neexut sax boo ko war a def ko ndax neex ak naqari yu tax nit ki di neex nit na bokk ak moom pas-pas rek su ko dee wan gannaaw it ba ba muy wàññiku na ko xool-xool mu doon koo xam ne la ko dal mënu ko dindi ci ci loxoom mënu ko dindi ci làmmiñam mënu koo ci ñaar yooyu mu naqari ko tax mu fañ ko ab diggante ba xam kooko dana dëppam de wa an yuxiba lil ilahi dil anaam saxsan wa yubgida lahu la lil xutaam dal ne digleeg tere nag am na ay charte charte yooyu lu ñiy digleeg ka tere ëppante doole ñoo ca yam kepp li ñuy ëppante doole lépp ba kii mën a dindeeg loxoom kii mën a reeteet li ñuy ëppante doole lépp ñoo bokk benn nattukaay bi nee na kiy digle na xam munkar dëgg dëgg dëgg mooy lan xàmmee ko soog koo tere te tere gam koy tere mu ànd ak ab yar ak i teggin ak xikma ak mawida xasana mooy bu gisee munkar nit di ko def na ko woo bañ wéet ñoom ñaar mu leeralal ko lii mu nekk lu mu doon bu xamee ne mi ngi tàmbali déglu mu daal di potoxlu foofu rek daal di koy digal li ñu war a def lu mu doon waaye nag ku ko def danañ jaar ak yow fii danañ jaar ak yow faa du aw yoon jaaduwul moo tax mu ne na doon ku xam munkar bi muy bëgg a tere lu mu doon te tere ga bañ a indi ab safaan mu bañ a gën a tasaaroo ndax am na yoo xam ne ku ko tudd lim ko ya nga limut yëpp daa dagan yi nga yi nga lim ne yi baaxul ya nga tudd dafa dagan danga ko daganal dañuy déglu ma fa mu sarti wala ma fa mu mu xaalafa bi kon bokk lu mat a tey la mat naa togg ba mu ñor xom moom lay wax ne an yakun ay an yakuna aaliman bil munkari aalim xam lii fii mu toll xam fa muy jëm la cay mujj lépp ak nam koy nam koy teree walaysa mufdiyan li charrin akbar dund loo xam ne su ne dama koy tere mu gën a tasaaroo far ñi ko xamutoon xam ko ndax léeg-léeg ñu lim loo xam ne am na ñoo xam ne keroog la ma sa dugg seen nopp xami woon ne mi ngi am faw ñu dañu ko kumpa musiba daal tàmbalee am moo tax réew sàngam bu ñu bëggee tere yenn dara dañ koo daganal ndax boo koy tere nit ñi daal koy wuti ci suuf ba xam lu tax ñu di ko tere waaye su ne fàng biti boo dem ñu jaay ko fa duutu am benn valeur ña ca doon business di ko nëbbu naan nii la baaxee naa la baaxee dutuñ ci am benn lay wuñ koy jaayee nit ñi njëg bu cher donte ñoom lañ daganal baaxul waaye foofu lañ ko jaar dañ ko banaliser baat boobu lañ jëfandikoo ba ca topp mooy ki jël responsabilité am di digle doon koo xam ne lu mu digle ñu def ko bu doon kuñ digle ñu def ko bu doon ko mënut a tere ñu bàyyi ba noppi li muy tere na doon lu ñu mën a bàyyi am doole ji ba noppi la muy tere doon lañu mën a bàyyi tam tàmbalee ko ci boppam moom dikk ko bàyyi ndax téere boobu ma tudd ci njëlbéen nga daf ne bu xamee sart yi mu tuub la weesu ndax ñàkk xamam taxoon sart ya daf ca tudd réccu kiy digle daa war a réccu moom ci boppam bu fekkee defoon na mu fas yéene tànkam du ci tege mu te kum am ci yow baat bu toog ñu teg mu sa koo jël ci mbedd mi am kattanu mën a digle ñu def am kattanu mën a tere ñu bàyyi te la ngay tere ñu mën koo bàyyi ci misaal ñun ñëpp xam nañ ne li ëpp ci waa réew mi seenub añ la muy doon ñu baree ko bokk la amul ku am ak ku néewle am na plat boo xam daal ñëpp ca dajale ñu ne Sénégal ak ñu nekk bitim réew te di ay Sénégalais ñëpp ko xamandoo waaye tey ku amoon kattan ba ne ku koy jëfandikoo ti bul ko dànk xam nañ li muy tere kenn mënu koo bàyyi waaye mën na leen a wan yoon woo xam ne dañ ko koy jëfandikoo te doo ko ci dànkante day génn ci télévision yi nga xam ne ak internet bi di ko wane waaye koo xam ne bu nit ñi lekk bu fi nit ñi nekkee sax balaa lekk day dummuy wala leen gannaaw kooku mënut a jàngale aw lekk aw dànken mënu ko jàngale wa an yakuna qadiran dul amri ala al izalati bi gayri nukri dal ne nag na ngeen xam ne digleeg tere lu mat a teeylu la ndax saa boo diglee tere nga safaan ba waaye saa boo tere safaan ba it digle nga safaan ba moo tax ñu mat a xàmmee te yëkkati ci kàddu ba noppi melut na mu war a mel yàkkamte dana ko waral nañu war a jëkk jàngal nit ñi pas-pas maaruuf ak i bokkam ak jëfe ko suñ ko mokkalee ba tàmm ko dutuñu dem ci leneen su fekkee wax ko ñu dégg ko mënut a ñàkk nañ leen jàngal munkar dëgg dëgg la ca nekk ci ay mulaabasaat ay négatif li muy yàq ak yàq nga na mën a lawe tey fii ci àdduna jëm àllaaxir su boobaa ku amul xel te tënk woon lu néew néew ci maaruuf pas-pas bu dëgër dutu ko def moo tax mu ne waalam bi ann al amra wa nahya jalaa baynahuma talaazumun te amala settantal leen bu baax door yëkkati seen kàddu fa man naha an ay cheyin qad jara fa innahu bi aksi qad amara ku ne ku solut mbub mu weex bu mu fi jaar dangaa détaillé doonte tere nga ñu sol meneen mbubb mu weex nga digle da nga digle da nga tere da nga ne ku solut mbub mu weex bu mu fi jaar bu mu fi jaar da nga tere waaw kii aksi woon ci buntu ba noppi nag te yëgu ko woon te mënu fa ñàkk dugg coono dikk na bu ñu ëpp soluñ bu muy weex faaw ñu forcé bunt bi dugg ndax mu ñu ñàkk dugg coow la bari moo tax da nga naan barab sàngam bala ñu faa dem nañ sol lu jot rek muur fii muur faa kese doy na couleur ba amu ci solo waaye saa boo tuddee couleur yi détaillé ko rek indi nga fitna joo xam ne dootoo ko mën a faj ndax nit ñi ñooy tànnal seen bopp ku ci dem ca jabax bu fekkoon yaa leen jox yére yi ñu sol moom tàntan bu fekkoon ñëpp yaa leen jox lu ñu sol mën ngaa xëy ne bu fekkoon saret yére lu dul lu weex waaye ginnaaw ku ne dem tànn ba mu bëgg ñawlu ko nam ko soxla daanaka tere ga amatul njëriñ moo tax kuy ñëw na sol mbubb mu mel nangam tàmbalee ci wagg yi ba ci wëq wa doon mbubb mu yaatu te bañ a yaraax couleur bu mu doon baax moo tax suñ bi ne dànkaaf settante leen ko bala ngeen yëkkati seen kàddu ñu naan dañoo jëfewut la mu waxoon te fekk la nga la nga digle la kenn mënta def la ngay tere lekk di mënta bàyyi fa man naha an ay cheyin qad jara fa innahu bi aksi qad amara bu fi kenn jaar te solo mbub mu weex mbub mu weex am na ñoo xam ne couleur bu weex neexu leen ñeel nañ sol mbub mu mel nangam rek te bala nga ko yëkkati na nga fexe ba ñu ëpp mën a am mbub mu mel noonu te it nga teg ca it fab ay teg ay ay piis ci pegg bi di daggalaate ay yére su ko defee kon digle ak tere yàlla na nu ko yàlla déggloo waaye li ma ne nattukaay bi sëriñ bi joxe na xàmmee li muy tere ba bañ a digle bis lu ñu warta def ndax yaa yore kàddu gu yaa war a wax yaa war a wax ak yaa mën a wax bokkuñu ku jàng fiq da nga ci gis ba tàyyi bi dikri wal qudra xam ko man ko bu ñuy wax dinaa wax laa tudd nañuy natt ñi wax ñoom doon ba xam xam naam déet su xamee ba noppi ñu xool ba xam ku ko mën a wax nit ñi bañ dégg ko la wala déet su dee ku ko mën a wax bañ dégg ko la ñu nattaat ca ba xam moom ndax ku saf nit ñi daan déet ndax léeg-léeg nit ñi duñu am soxla ci li muy wax waaye kii wax moo leen di saf moo leen di neex su loolu weesoo ñu xool ba xam moom lii muy tere nu mu ca def ndax bàyyi na lépp wala déet wala lii muy digle doonte feesal na nattukaay yi xam na mën naa wax saf na nit ñi nañ xool ba xam li muy digle mi ngi koy def léppam de ak li muy tere ndax bàyyi na lépp wala déet. loolu nag sëriñ bi nee na nattukaay yooyu kii am kàttan ba sañ ko ba jox ko sañ-sañ bi ak ki ko amul ñoo ci yam ndax kenn ku ne am na fu mu toll kenn ku nekk ci biir këram nga nga xam ne moo leen di jox ñuy dund ñëpp bam lañ yaakaar bu mu xaar kenn na tàmbalee sa ñoom. na muy tàmbale ci ñoom nag bu dee lu mu bañ ñu seetaan ko ci télé bi bu mu dem couper courant bi wala sax mu bañ jënd télévision fa waaye nay fexe ba waxtu wa ñu war a seetaan télé bi moom mu tàmmal leen ab jotaayu boppam boo xam ne kenn du tal tele dañuy fa duñ xam sax téléphone fexe ba miinal leen boppam ñu miin ko ba suñ ko gisut mu manqué leen ñaareel ba it mu amal leen njariñ ba ñëpp rus ko ba ku ci mag mu am xel bu la teree nga daal di bàyyi fa saasa ndax rus nga mu gisate la su dee jigéen ja leen jur nam defoon ba muy ngoro buy dem dana fexe ba neex a xool dana fexe ba waa kër ga so nangul ko ka muy fekk du ko wax baat bu baadoo la du fa def yëfi baadoo la ba ba mu fay jóge loolu su ko dëkkee ak waa këram lu mu leen wax danañ ko def waaye su fekkee nag dangaa daj lu baree baree bari ba nga cay laata jot joxe lu bari bu ñëwee it ca la ko neex dong lay nekk doo ko mën a digal doo ko mën a tere da koy neex rek yàlla koy wàññi rek su ko defee nag yow soo bàyyee lu mel noonu ba naa fi bëgg a génn ci mbedd mi naan ku ko def ñu def ko ñu def ko naa coowoo nar a bari rek fukk day gas téeméer di suul kese fukk fukk day day gas téeméer di suul pën day bari waaye sul waaye pax du gaaw a am su ko defee kon yu bari bala moo jógati maa ngi koy tàmbale ci waroom kër yi ba ñuy xaatar xaatar yi di jaay yu amul naan man nangam ku ko def génn sama kër ba ñéeg ca am na ñu ne woon siiw génn kër gi dañ cay daal di jaar moom te yaa waxoon alxurru xurrun maa lam yatakallam mu ñàkk te nit du dem ba doo jigéen du dem bàyyi fa doomam doom moom boo ko jëkkee doo ko mujj buy màgg di fekk ay bopp su ko defee nag loolu day daal dugg ci munkaraat yi munkar mooy pas-pas bu baaxul li muy wax gëmu ko gëmu ko daa bëgg diw dégg ko rek ne la nga waxoon maa nga ca rek waaye gëmut li muy wax dara kese te fa laysa yugnika rida alxalqi ida lam turdi mawlaaka faaxid faaxid an dalida wala yatruka ida ardayta mawlaaka suxtu man lahu asayta kon nañ yeesalaat pas-pas yi te jàngale pas-pas lu mu doon munkar ba ca yées mooy pas-pas bu yàqu te pas-pas yu yàqu te boroom yëgu ko mi ngi ne gàñ gàññaaral te day law lawaale ñam dëkkal ni lu baax di wallaatee ba ku baax boo dëkkee moom daal di baax léegi noonu la munkar di wallaatee dañ koy wax di ko wax ba miin ko ba safatu dara ñëpp daal di cay bokk ci kenn ku nekk bi mu koy wax kontóoru lam façon ma ngay fecc ko ku ko weddi rek na jël ci téléphone am def ci lu bari jaaxaan rek ku xelam dem rek mu woote day woote rek ñu ne ko jeexal nga lam doon wax yàlla yàlla nay farata yàlla noonu yàlla defal dégg ak topp te musuñu seytaane nekk pakkam yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin